sama baay keroog bi ko yàlla moomee ba mu ñëwee te tiim ko wax na ci moom secret bu rëy ndax wax na ne ba Cheikh Mor Sow bu ne billaahi la si laa ilaaha illaa huwa jëmm jii tëdd wàlliw la kenn xamu ko mu ne ko waaw ñu ne ko waaw loolu ñëpp naan di moom loolu mu ne waaw ni ma ko xamee moo tëdd naa ca gab gis ko moog sëñ Tuubaa ak Cheikh Sadbu Cheikh Ibrahima Daaro ak sëñ Touba ak Cheikh Sadbu ñu bokk benn néeg te néeg bi ah euh, ay biddiw ko xadde te ko puj mu gént ko moom Cheikh Mor Sow Guèye ca gab sama baay nekk fii gént ko muy génn gi sama baay jóge fii dem mu jàpp ci loxoom wax ko ko keroog sama baay keroog la daanu ne ko wallaay sal wax nga dëgg noonu nga ko gisee laa ko gisee bi mu ne nag moom foofu la bi bi ñu ko robee ba noppi Cheikh Cheikh ma Diop dikk ne avant muy wax mu ne boo ko moo soo julliwu dinaa ko solli jullee ko ñu ne ko moo ko jullee alhamdulilah rabbil alamin ah danoo bëgg nga may nu ci rek ñaari kàddu soow laam mi daal dana ko bëgg ci kër gi danoo neex am loo na mi ngi sos wax nga xam ne yërmandeem jullit ak yefar ki koy top, ak ki koy moy fi ci adina wante mu beral yermande ëllëg ñako daan top neena mi ngi sant yalla mi nga xamne moy borom borom fon yépp mi ngi julli di selmal ci ki gëna tedd ci ku yalla ma sa yoni di suñu sang boobu ak kooku nga xam ne mooy suñu méngokaayu mbir di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ginnaaw loolu mi ngi leen di nuyu yéen mbooloo mi ñépp xam naa kàddu yi muy joyal du bari nee na mi ngi nuyu mag ñi yàlla jiital ci dëkk bi di alaaji cheikh Mour Mokhtar Diop ak alxaaji cheikh Ousseynou juuf ak alxaaji cheikh osmaan juuf ak njaboot yi nekk ci seen ginnaaw yépp nee na ñu mënoon nañoo ñàkk jël kàddu ndax cheikh Abdou Khadir Jeylaani joob mii di doomu cheikh Mouhamad Diop doomu cheikh Mouhamad Mokhtar Diop wax na lépp te nee na amul sikk ci ne fii mu toog moo fi toog toogaayu cheikh Mouhamad Mokhtar Diop moo fi toog toogaayu cheikh Mouhamad Diop tooge fi toogaayu cheikh Mouhamadul Imam Diop ayyadahu llahu wa nasara donte sax ay atam bariwul ci zahir wante sëriñ bi nee na na ñépp xam ne cheikh Abdou Khadir mii toog nitu yàlla piir la te ku sàmm la te neena na lii muy wax waxewu ko bànneexu bakkan lu mu xam la du moom mi toog jataayam bii taxut mu koy wax baayam Cheikh Mouhamad Diop nee na wallaahi ñu bari xamuñu ko waaye nee na man mii day xam naa ko bu baax nee na lii alaaji Cheikh Ousseynou Diouf wax léegi nee na Cheikh Mouhamad Diop day wàlli yu piir la te nee na man mii dama ko natt ba xam ko bu baax nee na waaye amul sikki ci ne jëmm jaa dem ci zahir wante baatin ba demut nee nag yàlla def na baatinab cheikh Mouhamad Diop lépp mi ngi ci cheikh Abdou Khadir mii toog nee na kon su may nuyoo damay commencé ci baatu cheikh Mouhamad Limam ki nga xam ne mooy xalifa cheikh Mouhamad Diop di xalifa cheikh Moun Makhtar Diop ci kaw suuf di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yàggal ko lool te ànd ak wér ak njabootam ak i taalibeem nee na li cheikh Abdou Khadir wax ñun ñi yàlla dafa dogal nee na ñun day ñépp suñu ñoom lañu nee na du ñu tàqale kenn ak kenn fekk na nag nit ku ne am na fu mu wóolu ba féete fa kon nag nee na ñun bu ñu xamee looloo tam dañuy jël tariixa Cheikh Ahmadou Bamba jël tariixa Alaaji Malick ak mbooleem ñoom ñi nga xam ne dañu woote woon jëm ci yàlla nee na ñu jël ñooñu yemale leen ñoom ñépp ngir yàlla kese nee na Cheikh Abdou Khadir wax na ko léegi xàjjali baaxul nee na tàqali dafa nekk lu xaram bu fekkee na ab jullit nga nee na noonu leen ko cheikh bi ñaaxe nee na yéen daayira bi xale yi góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi nañ ko dégg bu baax ndax nit lum ne na ca dëgër rawatina nga nekk ci lu baax nga nekk ci lu gën werante amul ci ne seen sëriñ yi yonent bi sallallahu alayhi wa ko jur ci lu wér seex na seex saad bu wax na ko nee na nun deretu yonent bi ak nubuwaam lépp mi ngi ci ñun donn nañ lépp ndax fatimatu bintu rasul moo ñu jur mooy suñu maam fatima day muhammad moo ko jur nee na moo tax seexna seex saat bu wax ci xasidaam boobu ne nooru nubuwata alayna la yazul tawaarasat anhu fuxuulun an fuxuul nubuwaag yonant bi leer googu nga xam ne da doon daw ci Seydina Muhammad wàcc si ci Fatimatu Zahra nee na ba mu jógee ci Fatimatu Zahra ñu jóge fi noonu la ko yàlla toxale ci Cheikh Abdou Khadir Jeylaani mu jóge ca toxu si ci Cheikh Mouhamad Fadal jóge Cheikh Mouhamad Fadal toxu ci man Cheikh Cheikh te nee na ba yowmal qiyaam kuuy mu fi toog nekk xut bu samaan leer ga dem ci yow bug fa koogu jógee mu dem ci keneen ba kero saa di taxaw te nee na waxut sax shérif yi waaye sëriñ bi nee na amul sikk ci ne ñi nekk seeni bi sax ay wàll yoo ngi ci jóg nee na seex na seex saat bu waxoon nee na jamono ngi ñëw ay weddikat yu ñime yàlla dañu taxaw di dal sax ci kaw sutu yonent yi waxuñu nitu yàlla yenn yi mu ne seen Cheikh Saad bu waxoon ne ne jamono ngi ñëw weddikat yooyu bi mu leen di raddu di leen delloowaat noon na yow mi nga xam ne danga ñëw di weddi askanale bi nu yàlla askanale ci yont yàlla muhammad ngir sag bew ak sag ñàkk xam ak sag sànku defal ndànk mu ne diglul bu baax te nga xeraw lu tebul nekk ca ñi nga xam ne dañoo sànku te dañoo réer ndax nee na kiy weddu ne noon ñii leer ga daan daw ci Seydina Muhammad jaar ci Faatumatu Zahra mooy daw ci noon ba yowmal qiyaam boo ko weddee sànku nga te réer nga te alku nga nee na amul sikk ci ne baatin ba nag donn nan ko waaye tasrif ya ñu daan def donn nan ko tam def léegi ñépp gis léegi nee na billaahi yàlla may na leen ko amul werante te nee na loolu ku ko seet di nga ko gis ñun nag nee na danoo baaxoowut di bàkku dañ noo yar ci tasawuf looloo tax xam xëy na ñu bari xamuñu Cheikh Abdou Khadir Jeylaani mooy turandoo Cheikh Abdou Khadir mii doon wax waxoon na ne sama taalibe na dëggu rekk نانا خم غليبون موي دنج دنجي لا القران وخن مزبذبين بين ذلك لا اله الا ولا اله الا جاب لو بايلو نانا لولو كوكاي داف داغي الكو واي وخون ناني سما طالب سو فكيني سامونا كل رغي جار سما ديغنتك موم نانا دينا كو ار في تي ادنا بو لغي يوم الخيام ba ñu tëg jinne teew ba ñu samp seraat ñu peese jëfi jaam ñi nee na keroog laa gën a aar sama taalibe ak yowmal xiyaam bu yàlla tegee seraat mu tiim jahannama ñépp di ko jéggi keroog laa la gën a aar nee na waxaat na bu baax nee na nee na yow sama taalibe ak foo mën a nekk ak koo mën a doon nee na sàmmal lii ma la wax rek nee sama taalibe day su ma nekkoon ca Baxdaad nga nekk ca Siin soo ma wooyee balaa sa kàddoo daanu foo mën a nekk man Cheikh Abdou Khadir Jeylaani dinaa la wallu yaa xam nekkal ci géej yaa xam nekkal ci jéeri yaa xam neel ci abiyom baa nga nekk ci biir suuf foo mën a nekk soo ne yaa Cheikh Abdou Khadir Jeylaani balaa daanu ma wër la juróom-ñaar fukki yoon nee na wallaahi sikki newu ci nee na lii mu wax bari na nee na dem na ba am ak faydu ak bëbbul gu mu am ci yàlla moom mu bind Cheikh Abdou Khadre Jeylaani mu ne mu ne Cheikh Abdou Khadre Jeylaani mu jikki ba ci yàgg ay tajalliyaatul ilaahiya ñëwal ko mu jikkee jikki mu def irtijaal mu ne billaahi secret bi ma yàlla dénk su ma fekk niiw bu ne wét koo xam ne dafa faatu ñu denc ko ba mu am téeméeri at ci suuf su ma ko nee jógal néew ba dina jóg ci sama ndigal man te nee na loolu amul sikk ci ne def na def na ko ci Baxdaad am na koo xam ne faatu na ci Baxdaad ñu denc ko bàmmeel bi yuuxu rek ba ñuy dend ak moom mënatuñoo nelaw ñu ñëw ci Abdou Khadre Jeylaani wax ko ko nee na mu ne leen ah ñu ne ko waaw mu ne dem leen toog des na tuuti duutu leen ko dégg ndax kooku mas na maa gis benn yoon mu ne kon loola lan la nee na ab yahud ñëw na ci moom walla nasaraan ne ko nee na ñëw ne ko yow si Abdul Xaadir Jilaani seen yonant bi ngeen di wax di ko tagg lan la def nee na mu ne ko suñu yonante Isaa day moom de def daan fekk ku dee mu laal ko mu jóg dox da daan ñëw fekk ku muuma walla ko lafañ mu ñëw laal ko mu dox walla koo xam ne dafa silmaxa mu laal ko mu gis kon nag yow dama bëgg seen yonant bi ngeen di wax nga wax ma lu mu def si Abdou Khari Jeylaani ne ko ne ko hee suñ yonant bi kooku moom sori na man mii di wax ab sëtam laa jaamam laa kenn dong laa ci xeetam baal ma won la nee na mu ne ko nan ànd dem ca bàmmeel ya yonent bi moom sori na man mii nga xam ne kenn laa ciw xeetam nan dem ca bàmmeel ya seetal bàmmeel bu la neex boo bëggee mu jóg waxal ma wax mu jóg léegi nee na ki ko doon wax mag mu am téeméeri at la mu ànd ak moom dem ca armeel ya mu fi gis bàmmeel boo xam ne kenn xamatu sax ne bàmmeel la mu ne ko kii day xam naa ki fi tëdd fekke naa ba ñu koy rob na jóg Cheikh Abdou Khadre Jilani ne diglul bu baax ma wax la mu ne ko duma ko woo ci kàttanu yàlla de duma ko woo ci turu Seydina Muhammad sama maam man ci sama turu bopp laa koy woo Cheikh Abdou Khadre Jilani teg loxoom ci bàmmeel bi ne ko xum bi is nii jógal ci sama ndigal bàmmeel ba ne tàcc waa ji jóg taxaw jox ko loxo waaja daal di commencé mel ni luy génn àddina mu dalal ko mu tëddaat mu ne ko su fekkee man mii maay def lii kon sama maam Muhammad nan la mel moom kon nag nit nee na nit lu muy topp da koo war a xam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu bu dee ku xam Cheikh Abdou Khadir Jeylaani rek def na ko nee na wax naa ko ba tàyyi ku dem Touba di nga fa fekk quartier bu ñuy wax Bagdad Bagdad ci Iraq foofu la Cheikh Abdou Khadir Jeylaani nekk ku dem Touba ka foofa ديخ فيناسي عبد الخادر جيلي لا نكوي واخ كيغا خامني مو نيكون امام الائمه في توبا نانا كون سون طالب شيخ عثمان جان نانا مو نيتلي مو ني داف دون دم عراق دي جي شيخ عبد الخادر جيلاني Cheikh Ousmane Diagne moo nekkoon président supérieur xaadiriya ci jamonoy Cheikh na Faye ba ci jamonoy Cheikh Bounane nee na bi muy dem Irak di siyaari Cheikh Abdou Khadir Jeylaani mu ne day dem tàggu ji kon turandoom boobu di Cheikh Abdou Khadir Mbacke boobu mi ngi ci jamono. nee bi Cheikh Ousmane Diagne ñëwee ne ko ca sa turandoo wala jëm. ngay aw turandoom tey ci kaw suuf yor martaba bi nga yor may dem ca moom te tàgguwuma la nee na Cheikh Abdou Khadre Mbacké wax Cheikh Ousmane Diagne ne ko nanga ko nuyul waaye boo demee booy ñëw nanga ma indil sëri ca Cheikh Ousmane na nee na bi mu demee Baxdaad ca Irak ba mu duggee ca rawdu ba wax ko kam fa nekkalan fekk la ñu woddeen xabru ba ñu dindi ko doon ko salaat nee na bi mu ko ko waxee kooku lem ko ba mu jekk jox ko Cheikh ausmaan Diagne te moom waxu ko ne kenn yóbbante ne ma Cheikh Ousmane nee na bi may ñëw Touba jaar ne ko ah mi ngi nii de nee na kon defe naa ne diggante xaadir ak murit konaa xanaa ku xamul rekk ciy wax lépp di benn Cheikh Ahmadou Bamba wàll yu dëgg la wallaahi ku baax la ku jege yàlla koo xam ne ku doylu la suufi yu dëgg la moom wax na ne juróomi góor ñoom la gis ñoom rekk la gis ñu def direct ci yàlla waaye kenn yéegew leen ka ca jëkk mooy Cheikh Abdou Khadir Jeylaani na nam ko ñaane woon ca mbindam rekk ne yàlla maa ngi lay ñaan ci barke juróomi góor yi nga xam ne ni ñooy juróomi góor yi yéeg direct kenn yéegew نينا مني الشيخ الخوس الخادر الجيلاني الحائس العلوم والعرفاني كيغا خامني ني مو شي عبد الخادر الجيلاني كيغا خامني مو لاق خيتي خام خام ييب علوم اك عرفان نياري خام خام لاج سون كو دون غاتال رك داني نان خام خام ظاهر اك خام خام باطن ولا غاني خام خام شريعه اك خام خام حقيقه نينا جوروم يوي مو تودو ييب موم مو تي جيتو nee na kon mi ngi leen di may boobu xasida boobu day képp ku ko gëm soxla boo mën a am nga sell boo ko ñaanee juróom-ñaari yoon boo ko jàngee loo ci ñaan yàlla mën na la koo defal incha allah nee ba mu jógee Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ñooñu Cheikh Mouhamad Xasaali ca la bokk nee na ñooñu Cheikh Abi Yasid al bokk nee na Cheikh Tayfor Ibnu Isa ca la bokk Cheikh Abdou laa ni juróomeel leen nee na xasiida boo xam ne nii daf koo tënk rek waaye kenn du ko ñaane ci anam bu sel la nga bëgg yàlla defal ko kon nag nee na kon ñu ngi yem fii Cheikh Abdou Khadir nee na ñi ngi ñaan yàlla mu gudd fan bu baax ñu ngi ñaan yàlla bàyyi ko ci kanam taalibe yi nee na ñi ngi ñaan yàlla def ci moom tawfiix nee na ñi ngi ñaan suñu xalifa cheikh Mouhamadul Limam nee na ñi ngi ñaan yàlla yokk wéram bàyyi ko ci suñu kanam ak njobootam yépp ak taaliba yépp nee na cheikh Mouhamad Limam de maa ngi leen di seereel ne ku wóolu cheikh Abdou Khadir Jeylaani mii la ba nee na cheikh Mouhamad Limam de wér na ma ne du def lenn. loo xam ni lu jëm ci diina wala ci tarixa bi te woowut Cheikh Abdou Khadir Jeylaani mi mu toog nee na kon nag ñi ngi koy ñaanal yàlla bu baax nee na ñi ngi ñaan yàlla ñi ngeen def te yàlla ren rengu tax nee na yal ngeen ko man faw nee na te at mu ñëw yàlla na ngeen ci man lu ëpp li ngeen man ren nee na mi ngi ñaan seen mag ñi yal na ko yàlla bàyyeeg yéen ak seeni njaboot ba te ñu ànd ak wér nee na ñi ngi sant ñëpp képp koo xam ne ronu nga tànt bi ñu ngi lay nuyu di ñaan yàlla lépp luy sa soxla yàlla na ko yàlla faj bi barakat seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh génneel la waa Isa den wax seen yonent ba boo neppee nga bàkk yaa rasulullah ca turam yu kawe ya ca maqaamaam yu rëy ya seena se saadu la bi nee na seyduna muhammad lépp loo ko kañe ba mu des la waa Isa doon wax seen yonent ba yelloo ko moom seyduna muhammad def leen nii بنو مجال مامي ايا ايدرا سيانا سيسار لبينا يلا كوحتي القران موني لم يلد ولم يولد بوربي امون داي تي امون باي امون دندا كان الله واي بول الله لقلوبك سيدنا محمد دعنا أعداد حوم صافي واحكم بكل حزب علي دام سودو لذاتي ذاتي فحام في ذاتي مع الآيات دهر دها رير الكتاب والجديد لا يقتزى تعرف ولا يهير سنسسر بيننا هو المراد من جميل حلخي وهو المكرم بعز سقيه هو السراج في السماء والأرض هو الشفيع كلنا والبعد سيدنا محمد كم الإمام دوتي فهم سيدنا محمد كم الإمام asamaan dootu ko tiim yaa rasuulullaay ku mel ni moom suuf dootu ko taal seex sa sabu nee na waat naa diggante asamaan ak suuf jigéen dootul jur ku mel ni siiduna muhammad wallaahi maa fi l ardi wa samaa'i كفرا للعمدان من الأسياء جريف محمد رسول الله محمد رسول الله آه وعدت المدينه kuma soppa maami alwari maale njaajuba taxaw ca kaw ñu màggal yonent mboolem ku fi baax ba ñu di la yaakaar way nga seyduna Muhammad déggalaa ba jati waawan Ahmadul Busri way na yaa rasulillahi Busri nee na kayfa tarxa ruqyaka lanbiya ya sama an matawalada sama lam yaza وكفر لك فلا لسنا منك دون وسنا إنما مثل صفاتك لنا سكما مثل نجوم الماء مولانا لا إله إلا الله وسوق سلامة الصعب نلني سلافة لا إله